بعض العزبلة بسملة وبعض البسملة عمدلة وبعض العمدلة أوغلة اللهم لا سعل إلى ما جعلته سعلا وأنت على الحسنة إذا زعت سعلا وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعملت من يحشمني من الضرر من كل شيطان وجن وبصر واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبي وخلبي أرشدا السلام عليكم mbokki جلدي yi mbokki mbokk yi ñuy bàyyi xel fii ci Mouride Info ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di leen bal àq di leen bal àq di ñaanal Seex Muntaxa Bachir borom bi dëpp ko kàttan biral ko waaye doolu yàlla yàlla wàcce yërmande seen kaw ndongali Mor Njaay teewaat fii ngir ñu waxtaane tey jëmuñ sell ànd koog Sëriñ mi ne ci xarale bi di dogal gàtt ñépp ñuy teew tey nag mel na suñu waxtaan day jëm ci beneen fànn ndax dañuy waxtaanee ju sell jëmm ju baax di ko lewet di ko diis kan ak baatin di maam Thierno Ibrahima Fati ndaamal daaru nekk di rakk ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul maam Thierno Ibrahima Fati soxna Fati Issa mooy way juróom bu jigéen waaye sëriñ Mamadou Anta Sali moom mooy way juróom bu góor soo toppee askanam ci diggante Mbàkke ak kokkele doon di askan bu baax ndax soo ko toppee dina dem ba ci Maxtaar Dumbe moom nga xam ne Serigne Touba nee na mooy sangu képp kum jamono teel ci suuf kajoor bu demete koy juróom dana dem ba ci maam kon li alxuraan waxoon ne wal baladu tayyibu yaxruju nabaatahu bi idni rabbihi wallazi xabusa laa yaxruju illaa nakida suuf su teey moom moo jur gàncax bu teey loolu la alxuraan wax tey xalpulaar yi dañoo wax ne nee na mujj baaba mujj bingal boneta baay baax yaay baax doom bu mën a bi nga xamee ne gane na jamono wax nañ ne Serigne Mame Mor Anta Saly dafa ñëw ba Serigne Touba Xaadimu Rasuul mu ne ko yow sax ñaan nangu na ndax am nga koo xam ne moo lay jàppale sa wàllu diine wax nañ ne boobu daa fekk Serigne Touba di jàng alquran ba toll suratul xasas mi ngi gënee jamono fukki fan ak juróom am na ñu ne juróom-ñaar ci weeru gàmmu ci atum 1863 ci dëkk bu ñuy wax Porokhane ñu daan ne jamono jooju muy gënee jamono at yu ko jiitu wala at yi ca topp boo tombee xarab jaabe kondaa muy xarab poise ko daa mel ne waxtaanoon nañ ko ci Sénégal démb bi ma dal jàng Serigne Touba Xaadimu daf koo boole euh, Serigne Mame Anta daf koo boole maam Cheikh Anta yabaleen ci ku ñu wax wax nañ ne lu ma at la ñu fa teg Serigne Mame Anta jël leen jox ko Serigne Touba Xaadimu Rasuul bu yeggale ko am njàngam kon dañuy dégg ne maam Thierno léppam Serigne Touba moom moo ko def. wax nañ ne bi mu nekk tout tànk te amagul aw tur Serigne Touba daana wër néeg bi di jàng alxuraan di jàng xasida maam Thierno bi mu jàngale alquran ba mokkal ko xayban man koo tari man koo bind ca du ko xool Serigne Touba daf koo digal mu yor daara ja di jàngale nga xam ne lu bari ci njaboot Serigne bi ak yenn ci ay seex si maam Thierno jàngal na leen ndax Cheikh Mamadou Fadal nett li bu siiw wax ne maag sama maag Cheikh Moustapha Al Karim suñu bàyyi Thierno daf ñoo jàngal benn ar muy yar nu benn nër waaye ma Mamour Sey làmpu njàmbur maam Thierno moo ko jàngal sëñ moo roqee bu sax wax na ne maam Thierno moo ko jàngal sëriñ Massamba it wax nañ ne maam Thierno jàngal na ko ak sëriñ Maxtaar Bintaloo di lim bu néew bu ñu xam boo xam ne ëpp na loola. maam Thierno yoroon boole woon ñaari jikko muy atarbiyatu bil maqaal atarbiyatu bil aal mooy sëriñ bi yor ay melakaan wala mu lay digal ak di la tere lépp luy tax nga def lu bon wala jëmmam yor jëmm joo xam ne boo xoolee da nga dolli ko ak cër ci borom bi subhanahu wa taala mu jàng fànni xam-xam yépp ba géej gi ba jàng sax Muxtasar Xalil di ëwal ak saani yi ñu ngi ko sukkandiku ci masabu imaamu Malik kon maam Thierno Serigne Touba doy la woon ko ba mu nekk loxo ndeyjooram bi nga xamee ne Serigne Touba sax dem na ci géej gi wax nañ ne jamono jooju am na feebar peste bu amoon ba njabootu Serigne bi mel na luy waaj dem ba Serigne Bara borom kàdd gi ci la jëlee nopp xaw yee naqar yi wax nañ ne maam Thierno dafa wax ne yow suñu borom maa ngi lay ñaan njabootu Serigne Touba Xaadimu Rasuul gi bu naree faatu. yàlla na Modou Awa Balla ak Cheikh Awa Balla samay doom faatu ñoom ñu dund ndax ñeenu ma benn yoon Serigne Touba ñoo maanaam ko bàmmeel yaa ngi nii loolu di lu daw yaram di lu métti ci ñoo xam ne ñoo bokk wenn wayjur kon maam Thierno lépp la koo jaay jënde ko ak li nga xam ne moom mooy ak taalibe maam Thierno Ibra Faty wax nañ ne am jamono yoo xam ne dajale na njabootu Serigne Touba Xaadimu Rasuul gépp ñu fanaan ci am euh, ci am sàq moom maam Thierno mu fanaan ca bunt ba kon loolu lépp dafay kon yàgg naa tumuraanke ci jamono yoo xam ne jamono yu metti la waaye loolu lépp rek ngir ah, fonk magam ju baax jooju di Serigne Touba Xaadimu Rasuul Serigne bi doy la ko laataa mu wuy ji ku nekk xam na ne maam Thierno Ibrahima Faty la fay wal nii Serigne Moussa Ka ne Thierno Faty jëmmi nit ju kay malaayka wute naag Moussa Ka loolu Serigne Moussa Ka def nag ak yu bari yi ca xew yoo xam ne am na maam Thierno. Sëriñ Tuubaa daana ko dégg naan ko inni ujaahidu bil hulumi wa tuqaa abdal xadi wal muhayminu saa'il yow maam ci yoon ma man Sëriñ Tuubaa kat damay jiyaat ci xam-xam ak ragal yàlla te loolu yonent bi sallallahu alayhi na ko Sëriñ Tuubaa yi daana dénk maam ci yoon naan ko hilman fatan yan fa otafim yow maam ci yoon donte benn nit la na ko xamal diine xamal ko lislaam ndax xamal ki nga xamal kat dina la jariñ ko Sëriñ Tuubaa jëlaat alif ga na ko usika bi sabri wa bil ixlaas li waj iman liye jaada bil ixlaas yow maam ci yoon maa ngi lay dénk ngay muñ ndax àddina ay jafe-jafe képp la jëlaat si dina ko salaamu sil jilaali wal di yàlla waxoon yonent sallallahu alayhi wasallam la ko Sëriñ ko jàmmi yàlla mii borom tedd nga yàlla na ko sob ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam maam Cerno nekkoon nekkoon ku lewet nekkoon ku maandu ndax maam Cerno wax nañ ne am na ku mas a ñëw ci moom na ko damaa bëgg a dem ci taalibe yi laaj na ne addiyee ngir ko maam Thierno na ko saa boo demee nga laaj leen dara ñu jox la ko lu nekkul seen coobaree bopp na nga xam ne ëllëg yawmal xiyaam di nga ko layoo moo tax benn waykat wax ne awhal yudaana ibra faati bi ilmihi wa salaati wa yubnihi wa sakai ndax am na kenn kenn ku ñuy déddaleeg maam Thierno ca xam-xam ba waaye ca maanu ba waaye ci mën a julli maam Thierno nekkoon ku ragal borom bi subhaanahu wa taala nga xam ne waxtu wu nekk day ànd ak la dem julli ji ko moom maam Thierno Faati waaye maam Thierno nekkoon ku mën a dimbalante ndax wax nañu am na jamono yoo xam ne crise mondiale bi mu amee tubaab bi dafa génne benn slogan wax ne askan bu nekk ña fa am nañu dimbali ñu amul wax nañ ne ñu bari ñu santoon Mbàkke maam Thierno moo leen doon dimbali waaye nag eh, way juróom wu jigéen nit liggéey fa ci kër Serigne Mamadou Sall liggéey bu rëy ba tax loolu lépp mën a yomb ci maam Thierno ndax Serigne Touba wax nañ ne mas koo jaay ab téere boo xam ne ñett dërëm lay jar mu wër réew bi yëpp amu ko wax nañ ne keroog soxna Fatou waaye juróom maam Thierno moom moo fay ñetti dërëm yooyu maam Thierno it liggéey ci keppaaru Serigne Touba Xaadimu Rasuul ba Serigne tubaa gërëm ko gërëm lu sax dàkk bind ko ci benn leetar di wax na bismillahi rahmaani rahim matee taxaw aynaka ala anaasil xuruf fa tayaxat bi anna kaatibaha raadin an karidan la suqta baax bi annahu xaal min illahi tabaraka wa taala ma yaxbatu nak ila axir abiyat Serigne Touba def na yow maam Thierno saa boo xamee ne gis nga sama arab yi nga xam ne maa ko bul sikki sàkk ki ko bind gërëm na la gërëm loo xam ne ca yàlla borom bi subhaanahu wa taala la bàyyi ko jaar Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam ñëw ci man Sëriñ ma jox la na nga teeyal sa bakkan na sa xol na maam Cerno kat na nga xam ne lii xéewal la bu jógee ci yàlla waaye yow maam Cerno kat dinaa defal loo xam ne ku dul yow dina la ñëwee kon loolu lépp day gis ne maam Cerno Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul gërëm na ko gërëm na sax dàkk jox ko it ndigal mu sanc ab dëkk mu tuddee ko daarul moxti muy këru aji texa gi muy dëkk boo xam ne bépp xewal boo xam ne am na fii ci Touba dana wàlli ba daarul moxti waaye bépp safaan boo xam ne euh, am na fii dana ko fekk foofu mooy daarul moxti ndax mook sëriñ bi seen lépp dafa jaxasoo ci la goreel mat 40 kilomètres carré nga xam ne ay karajeel yooyu yëpp ay daaru manaan ay cinkóoli da cay bokk waaye diggante maam ak mbokki pël yi nekkoon yu doy waar ndax wax nañ am na liggéey yu bon yoo xam ne daanam ko def ci garab ngir bëgg a jël bakkanu maam Thierno waaye suñu gasee ba jot reen ba rek buñ bëggee sotti bu nee Thierno reen bi ci boobu moo naan Mbàkke loolu lépp dañuy gis ne maam Thierno jànkonte na ko sancu daaru googu ay tartar yu jafe waaye nag li naan boo nekkalee yàlla yàlla nekkal la waaye maam Thierno Ibra Faati bu Serigne Touba doy la woon la ndax Serigne Touba kat daal di gisoon moom ci lu bëree bëri am na ndigal yu bëri yoo xam ne ci maam Thierno Ibra Faati la ko daan njëkk wax ndax wax nañ ne jumaay Touba ju njëkk ja ba ko Serigne Touba di tabaxlu ba mu wootee ci njaare maam na la woo mu ànd ak mag ñi keroog sëriñ Kale Sey Saadix moo leen defar bernde ba mu paree sëriñ Tuubaa ne leen laa bëgg ci Tuubaa jumaa yooyu yeneen maa ngi laaj kenn ku ne ak juróom-ñett ku ko mënut a joxe kër sa kilifteef na la maam Cerno na ko ndax sax mën nañ koo jox li sëriñ bi nag boofu seen baat yam ne mag ñi ba ñu génnee taxaw ca jumaa njëriñ ja kenn ci mbokki sëriñ bi moo ne sëriñ bi bëgg ak ay jafe ndax jumaa ji ñu taxaw ci keppaaram liñ ci daj ngir jumaa ji mën a am jëm bëgg ci Tuubaa su noppee ji dana mel ne waan Sëriñ Tuubaa yónni suñu kale say saarix na ko neel mag ñi nañ bàyyi néeg néegal yi te jublu ci li ma leen wax keroog mag ñi bi ñëwee Sëriñ Tuubaa ba mu ne leen liggéey bi laa bëgg ngeen jublu ci maam Thior xam ngeen lu ma bëgg a kii lu wax yàlla kon wóolu woon na Sëriñ Tuubaa waaye doole woon na ko te liggéeyu jumaa jooju nga xam ne mooy jumaa ju njëkk ja nga xam ne mi ngi nekkoon ci jullikaay éid bi jàpp armeel yi jëwriñ ja maam la woon ak euh, maam Serigne Fall Ah, làmb loolu ay nett li siiw yoo xam ne nit ñi nett nañu ko maam Thierno diggante ak sëriñ bi nekk diggante bu rafet la waaye maam Thierno dafa tabe woon ci alalam maam Thierno dafa tabe woon ci darajaam ndax araab yi dañoo wax ne wal juudu bi naqsi aqda gaayatil juudu tabe ba tabe jeex tabe ci sa ba sa bakkan mooy gën jaa sori day tabe maam Thierno al juudu ni maal doo ko defoon ndax wax nañ ne maam Thierno nit daana sàcc aw fasam bàyyi ba mu yàgg ba mu jàpp ne maam Thierno fàtte na ko mu ñëw maam Thierno da koy jëndewaat alal bi takk takk te day xam fasam la wal juudu bi maal ak wal al juudu bin nafs ñaar yëpp muy tabee ci alalam tabee ci bakkanam te ku ne xam ne ne maam Thierno ay jafe-jafe yu bari la jànkanteel ndax bi nga xamee ne sëriñ bi dem na ci géej gi wax nañ ne maam Thierno dëkk bi ci Touba sax am na fi jafe-jafe moom ak tubaab yi ba dañ koo génne woon yaas moom moo jël ñu dem ba waxtu waa bi wax ndax bind ñoom daal ni ñun daal suñu diggante Serigne Touba moo tax réussir ñaari mbir képp a ko waral mooy liñ fexe ba tërëgul Serigne Touba muy bind su fexe ba du bind ba maam Thierno tal kon liñ bëgg neen waaye ñaari tax daal bi mooy Serigne bi bind gi mu dëkkee kon ne kon maam nekkoon na loxoom day joor Serigne Touba di bras droit am nga xam ne wax Serigne Touba li muy wét wét ci géej gi ak ci tukki bi ci dëkk yu sori yooyu julli farata bu muy julli rek bu ne sami ala liman hamidahu maam Thierno dana maf ñand jaww ji fekk fa mu nekk ne ko rabbana wa lakal hamd te du ko yàqal ñi muy toppatoo ci Touba waaye maam Thierno tabe gi yaatu woon na lool moom maam Thierno ndax Serigne Bass Anta Niang wax na ne maam Thierno daana maye loolu mat fukki soxna ci génn guddi te bu leen mayee la ca war lépp maam Cheikh mam maam Thierno mom moo koy def yooyu yëpp dañuy gis ne kon ak tabe mun ta wees loolu te lépp lu mu def doo koy def li wax illa ndax maam Cerno Sëriñ Tuubaa fàgguloon na ko muy barke ak daraja mooy gudd fan boo xoolee njaboot Sëriñ Maam Mor Anta Sali gépp maam Cerno moo ci mujj gane moo ci mujj wàcc ab liggéey ndax 43 wax nañ ne la wàcc ab liggéey kon loolu gudd fan barke it am na ko ndax boo xoolee ak njabootam ba léegi am nañu fi des di dund Sëriñ Tuubaa mii magam ak njabootam kenn gis dafa ci saa kon loolu lépp dañuy wax ne barke la waaye bë ya li ëpp ci njabootam gi moom maam Thierno nag dana tuddee ñi nga xam ne ñooy daanaka boo duggee da nga ay tur yu bëri muy Seydina Ousmane Seydina Ali Seydina Abbas ñoom ñëpp di ay tur yoo xam ne dañuy wax ne doomu aadama kat boo ko tuddee aw moom ay jeexantal ca way day layoo ak doomam li nga xam ne moom mooy ay tur maam Thierno woo da wax nañ ne mas naa may maam Cheikh Anta ñaar fukki junni ak ñaar ci xaalisu nguur kon yooyu yëpp day wane ne maam Thierno ak tabe la waaye nag maam Thierno ko la ndax wax na am na boo xam ne dafa jël asalaam teg ko. mel ne kon maam Thierno dana nu ci moom ak ndax may na ñaar fukki ak ñaar kenn moom mooy si maam Cheikh Anta ci xaalisu nguur waaye maam ku amoon fula la ndax wax nañ ne am na bés boo xam ne daa jël ak salaam teg ko. am kenn ci taalibe yi ku jël sa talaga dem jàpp ji maam Thierno ko jëf ji nga jëf tey xam nga nu mu def dafay mel ne boo xam ne dafa jël way juróom jigéen yóbbu ko ci la lalu way juróom bu góor jëf ca jëfi way juróom bu góor nga xam ne muy wax ju naqaree dégg di wax joo xam ne ne ju euh, lëm lu baree bari la maam Cerno wax nañ ne am na benn taalibeem boo xam ne daa daan def buy julli day tiim ngir jamonoy sedd bi day am lu mel ne ay góom bi mu ko maam Cerno laajee mu ne ko sama góom yi moo tax maam Cerno na ko loolu jëfi seytaane képp la deel jàpp bi mu commencé di jàpp góom yooyu daal dañ kon maam Thierno ku ragaloon yàlla tey wax nañ ne maam Thierno benn yoon képp la mas a ci addunaam te wax nañ ne ba mu amee ndox daf koo fay maam Thierno doon ko jàmbaar Sëriñ Tuubaa wóolu ko ci lu bëree bëri ay masala yu bëri bu masaana ñëw maam Thierno Ibra Faati moom moo ko daan tontu wax nañ ne mas nañ ko mas nañoo laaj sëriñ bi ñaari laaj muy li ñu tuddee onsa ku am ñaari sexe ñu baal ci wax ji ngoon a ngaan ak koo ak benn xaj boo xam ne ah, da doon nàmpal am xar xar mi mooy jël dafaat dañ ko laajee maam Thierno wax na ne maam Thierno daf leen a wax ne da ngeen bàyyi ba xar yi di ñëw ngeen teg xar yi fële teg xar mi fële teg xar yi fële fu mu daw jëm ngeen atte ko foofu wax nañ ne xar mi dafa daw dugg ci xar yi ñu attee ko xar te loolu xel nangu na ko ki xam te moo amee ñaari awra yi maam Thierno da ngeen di xool bi ëpp li muy jëfandikoo bi mu tuural ndox ngeen atte ko ca boobu jël seen euh, da ngay dégg sëñ Moussa Kane bambaane ne leen maam Thierno gàggal di man bamba nga xam ne yooyu ay euh, delluwaay yu wér la yoo xam ne maam Thierno am na xam ne kon demoon na ba lekk ba nekk loxoom nday jooru du Touba Xaadimu Rasuul am na ci nettali yoo xam ne ñu bari ñu koy nettali ñu wax ne keroog bi nga xamee ne euh, ñoom baaxaan ak espèces yi ñu ngi ñëw ci këru Daaru Maraan gi yor seen jaas yi di caw sàkket yi wax nañ ne sàkket wi ñu njëkk a caw bi mu xaree jaas ji sa jaas ji fi mu dal diggante maam Thierno mutul 5 centimètres maam Thierno rëbbul sax daf ah, da ngaa xam ne sàkket bi du fayu man Thierno dafaati man nga war na caw sa jaas waaye li a yéeme dafa wax ne ba ca sa ba ma ko fekkee daarul muxti di ko siyaare ñaari jotaay yooyu man xàmmewu mu ne kon maam ci yoon doon dawum a ku murid yi yaakaaroon la fekk woo li yaakaar yaakaar lépp rek dana fekk ji magam ju baax moo tax da ngay dégg Serigne Moussa Ka di wax ne murid yépp nag di yaakaar ceer Ceerno ne ndax mu toog ban matal bii xarnu rek te boo dee def atum basa sasin xanaa bu doon am ñaa ngoor ma ngay dasa sasi watit walaa leen da nga wan ak ngoor ma ku dox doxi walaa di yeesal ngir ma nguurul ma maa ngi ci kër fekk leen ko dooma di bàyyi watit wa déglu leen ko Serigne Massamba nee na inspecteur la kuréel ak maam Thierno tey ma consiglière la nga xam ne kon maam Thierno diggante ak Serigne Touba daa demoon ba nekk bras droitam dem ba nekk ndoxam nday jooram ñibbisee ci tukki wax nañ ne Serigne bi ci boppam dem na ba wax ko ne yow maam Thierno ndax su fekkoonte man maa toog nga dem ndax lii ma fekk naa ko fekk ngir rek cër bu ko Serigne Touba jox ak dara jàll boo xam ne Serigne Touba dara jàll na ko maam Thierno te wax nañ ne Serigne bi bi muy dem ci géej gi doom ngay bi yi bàyyeel maam Thierno donga yi mi ngi ci ñaar fukk ak juróom-ñaar am ñu eh, juróom-ñaar juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar am na ñu ko tënk ci lim boobu te ginnaaw bi lim bi yokk na yokk bu bare baree baree bare maam Thierno Ibra Faty am ci taxawaay bu rafet bi sëriñ bi génne adduna it wax nañ ne dajale na waa kër sëriñ bi ne leen yéen ñi nga xam ne yàlla def na Cheikh Modou Moustapha di seen mag di seen kilifa na ko topp ndax ñu kat lu ñu am topp suñu way jur moo topp suñu mag ja wax ja moom moo ñu ko may jox murid yi ndigal nga ñu topp Cheikh Modou Moustapha mboolem rakk Cheikh Modou Moustapha Karim mun leen man ñii kat ak samay rakkat ñëpp lépp lu ñu mën a am rek topp suñu mag ju baax ja moom moo la ko maye xam ne kon maam Thierno ku daan delloo si xel yooyu waaye loolu moo tax nit Cheikh Modou Moustapha bàyyi woon na xel maam Thierno yi lu baree baree bare ndax bi muy toog ci xilaafa gi soo masaan a jógee njaa njàmbur ñëw nuyu si Cheikh Modou Moustapha daan la noo def sama baay Thierno soo ko xee mun la demal nga delloo sa addiya ji nga siyaare ma ko baay Thierno ni ko noonu boo jógee Daaru Salaam mën a bàyyi Cheikh Anta lu ko waral mooy kilifteef bi dañ ko ko jox moom it mu leen ko nga xam ne maam Cerno kon yoonu def na ci lu rëy a rëy wax nañ xam ne guerre mondiale bi mu jeexee euh, crise mondiale bi mu amee tubaab yi bi ñu ñëwee Sénégal maam na lebal na leen xaaj bu baree baree bare ñoom seen néeg bopp sax ñu ne ko dañuy sëje daal ne bu amee dina la fay bu ñu amul bi nga xaar ba ñu am maam Cerno ne koy ama ko ñàkk man du ko lebal jël leen ko ma dimbalee leen ko nga xam ne économie Sénégal dafa doon seelu rëy rëy ab baykat la woon li ëpp ci nit ñi maam Thierno moo leen dimbali waaye ku mënoon a jaamu yàlla ku daan taxaw guddi yi naafi la ku jeexoon takk Serigne Touba xaalisam bëgg Serigne Touba xaalisam waaye ku joxoon seex si ak mag ñi ay wàccuwaay moom maam Thierno di fàtte na am na bis maam Serigne làpp baa bi muridin wax nañ ne mooy siyaar si maam Serigne maam Thierno Ibra Faati keroog bi ñëwee ne maam Thierno Baye Cheikh moo lay siyaar moo lay siyaar si ngi taxaw ci bunt bi maam Thierno bëgg gi ak xam nga dana baat leen sàkkani koo xëy di gudd ñu baat di tëral ko maam Serigne Ba siyaare ba pare mu ne lan takkaa sàkkani xoolal boobu pas-pas te kon na yaay rek Serigne Touba Xaadimu Rasuul nga xam ne kon maam Thierno diggante ak Serigne bi taxawaay bu rafet rafet kon dana yell nit ñi di fàttaliku jàmbaar di mel noonu di waxtaane ak dundam tey bañ a jëfandikoo li seytaane di wax ne kenn mënu ko roy jëf-jëf moom dab ko ci dootul yomb waaye nag bu roy ci maam Thierno ak taalibe roy ci maam ci maam bëgg yàllaa ko bien dem roy ci maam Thierno li nga moom mooy pas-pas bu dëgër ndax loolu lépp pas-pas bu dëgër aku fit aku njàmbar waaye bu dee ci boromam da koo ragal ragal ragal ba ragal bi jéggi na dayoo màggal lu alquran nangu la ndax alquran dafa ne man yu'azzim hurmaatillahi fa huwa khayrun lahu képp koo xam ne màggal nga lu sunu borom subhanahu wa taala warmaal di nga jariñu tey bu ñu delloo ci jasbul xulub sëriñ bi li mu ñu tënkal ci gàmm loolu rek moom mooy yi màggal ta'zimuhu bi sunnati naa lil jannati bi di isdiyaadil minnati li moxlisin moassani lépp rek dañ koy màggal teg ko ci sunna mu wamandu jëm ñu ajal tey baatu màggal ci sëriñ bi lañ njëkk a génnee wax nañ ñu génneewul ci keneen màggal dañu wax ne miim gi mooy mawlidun nabi keef gi mooy kas zu rajab laam gi moom mooy laylatul qadar kon su fekkee ne yàlla nga def nga benn màgg rek mboolem xeet yi bi bisi màgg yooyu yëpp day daje yi ci yow ci genn guddi maam Thierno ku ragal borom bi subhanahu wa ndax wax nañ ne mas naa nekk ci këram daaru muxti ñuy yooxaloo benn sàcc maam Jaara bu ñu déggee yooxoo yi metti lool bi mu laajee dañ ne ko kooku dafa sàcc moo tax ñu koy yooxaloo maam Jaara accam man ne jàppoon naa ne faat waxtu rek moo jar ñuy yooxoo nit ki ba ñëpp xam ne kii faat na waxtu waaye sàcc daal lu jotu yooxaloo nga xool kon pas-pas bu dëgër boobu ak gis-gis boobu nga xam ne maam Cerno amoon na ko ci digganteem ak euh, boromam booy xool seexal na ay góor yàlla yu baree bari yoo xam ne lim ko du ñu ko mat waaye bu ñu delloo ci marché boo xam ne Cheikh Moussa Ka def na marché ba day wax ne lim naa lu mat juróom-ñett ak juróom-ñaar ci seexi maam Thierno ne ki la doon doy waar loolaay li mu satala yëpp daan naa ne ëllëg yamal xiyaam seexamee ñoo cee naan nga xam ne kon ñoom ñëpp ay góor lañ ñoo xam ne kenn ku nekk la war ci yow maam Thierno moom moo ko def bool la mbooloo nga dem sañ ci yeneen dëkk di defar ndax defar xool laaj te Serigne Touba la nekkoon ci moom daf koo nàpp daal maam Thierno bu defaat ñoom ñaar mosuñu umbante ci dara amul benn jataay wala benn barab boo xam ne maam Thierno mas na faa yenn wala mu faram fa lu dul rek ci ndigalal Serigne Touba Xaadimu Rasuul la ko amee moo Serigne Touba daana ko jox ay ndénkaan yu baree bare ngir wóolu ak doylu kon dina yàlla ci ñi xam ñooy màggali ci dëkk bu tedd boobu dëkk bu sell boobu ñu xam ne kat barab yooyu nit ki su fa jullee benn julli wala mu def benn istixfaar wala benn lu baax dañu koy ful ba mu nekk loo xam ne day jéggi dayoo waaye kasaalika bu ko defee borom bi subhanahu wa taala loolee doon di amul lu bon borom bi dana ko ful ba mu ne dafa am lu mooy pàkk bi moom moom tool daarul muxti da nga koy moom mooy Tuubaa xarfan bi xarfin ndax maam ci yoon na ko sanc ko ci ndigal boppam ci coobare boppam da ko sanc ci eh, ndigal bu jóge Serigne Touba eh, Xaadimu Rasuul bis bi niy màggal it bis bu jar a bis bu yàlla la boo xam ne kenn ku nekk ñun da nga ko war màggal bu ko waa daarul muxti sax màggal woon mooy bis boobee nga xamee ne Serigne Touba jóge na ci tukki bi Serigne daje ak maam Thierno muy daje booba nga xam ne Serigne Touba li mu doon wuti lépp am na ko li mu bëggoon ci suñu borom subhanahu wa taala lépp am ko wax ne xat fekk kab la xat ba sa fad wala ko jaay dajji jéngi yi dàq naa loo waaye tëj naa buntu xewal bis boobu Serigne bi dajeeg moom amul kersa ndax li ko dénkoon amul dara loo xam te ne na ci wala dara loo xam ne wàññeeku na ci kee li doon wuti am ko kee li mu bëggoon ko kon ñoom ñaar bis boobee nga xam ne ci la dajee bis boobee mooy bis màggalu Daaru Muxti kon dana yenn ci mbokki bi yi jóge ci ay gox yi fasanti ko ñu yar seen jëmm yar seen jikko jox wàccuwaayu place te xam ne yoon murit lépp ay tegg la mel na ñu ngi signalé nag waxtu jot na ndongale Mor Ndiaye ci beneen alxamis ci beneen numéro ñu di borom dëgg man la wa salaamu ala man ittabaal hudaa